am na bëñ yoo xam ne embrasser da koy indi quoi. Mm. bon li saa benn deux benn deux plus plus plus ça sa bëñ yi <laughs> ni mu lii. Euh, mooy. un centimètre bi. non non dafa génn nii quoi. non non dagg bi ngay wax. waaw dagg non moom waxul dagg bi de. nii waaw boobu taay ma nekkee boy. Uh-huh. xam ni sama yaay xam nga Tamba yaboy bi bariwul li muy ñëw merci Libaas je suis d'accord sur le ok c'est très beau. Euh, euh, voilà waa te waa TFM commencé nañ ko. <laughs> waaw nga ne boobu taay yaboy waaw yow waxal Sidibé da nga commencé combat bi. non mais ku la wax ne moom la. non Sidibé la man xam naa li ma la Sidibé la. waaw wuy ma Sidibé moo commencé combat bi kóor yi apart. non mais sa photo bi dafa rafet xanaa bii boobu temps. di bi solu ma ko taxawu ma si di yëpp c'est des montages. montage ni montage la. sax. kanamu 2S man dinaa ah. gën ni 2S. Ah. ah ah ah soo fi pire que ça. liggéey bu ne ngay def. bëñ bi. Mhm. ca ay sama yaay nekkee Tamba moo ak mère Aysel euh, bi dañ doon ñëw Dakar jënd jën yi jën yu bari yabooy ay sëdd yére de yaranka yëpp mm. bu ñu ñëwee nag ñu fiirir ko ba mu wow mm-hmm. ñu teg ko foofu ay ni indi tiir indi tigga rek léegi nag man sa kaccuróor dama doon sàcc fiirir bi ak tigga dëgg di ko mélangé fiirir ak tigga dëgg waaw je le mélangé rek moo dagg moo yóbbu waaw c'est moo amane loolu ah, day tàng waaw après di xam nga sàcc tëgg rek ak féeréer moom saa si ne rek comme ça quoi moo yóbbu woon. kii bi yow je comprends. raison pour laquelle. tëgg dëgg ak féeréer et puis de passage sama yaay na mu ne la ndeysaan c'est l'époque ñoom ñaari nekk si kër gi tàkkusaan bi ñu tegal paa bi caayin bi doxantu si kër gi non si maro si maro bisa wendo wendo plus suli plus sasa mooy libaas balars mooy libaas à cause de sa balars parce ah, que yaa siribe siribe xanaa sama dem joxula tey croissant yi moo tax nga mer affaire yi non moom madamam da koy jox ay croissant allo Alors, commune Dembadia, boum boum boum. Eh, hey, Dembadia, ça va, voilà. Oui, c'est moi Dembadia, boum boum boum quoi. man dama la woon sax mais Demba yow lan moo tax ngay yor ay armes mais toi c'était deux centaures pourquoi tu utilises les armes les pistolets c'est pourquoi c'est là lan moo ma jaaxal ah, yow man duma sa morom ah nga xam baax li ngay wax man duma sa morom ñun ñun pour ma doole man maa la ëpp doole ah puis yow yaa ko mu la mu war di wax mais pistolet lan lay def yéen bi ma wayee ma génne sama morceau mu def bum bum bum yow ci ni morceau wadi bum bum bum quoi. waaye morceau bi defee bum bum bum yéen waroon ngeen xam ni dina indi benn pistolet buy def bum bum bum quoi. li ma nekk rek may way way bum bum bum au lieu indi pistolet boo xam ne day def bum bum bum di tiire nit parce que léegi Sénégal su y en plus de sécurité hmm. y a plus de sécurité il faut que tu avoir un vrai bum bum bum hmm. et moi j'ai cherché un vrai bum bum bum quoi hmm. comme ça waajib gay be njaw saa ko quoi <coughs> next next bip next njëriñ ñooy laaj mu xew de. non def may yàpp may wax mu naa ma ay man duma sa morom dama way bum bum bum c'est normal ma yor bu def bum bum bum. mais mais. bonjour. Euh, man la colonel Aronasi. commissaire man la colonel Aronasi. commissaire de bu bàyyi di yokk grade bi euh, commissaire. non je le allo. waaw commissaire micro 1 2 man la euh, Aronasi. waaw doo ko bàyyi mu wax. doo ko bàyyi mu wax. pourtant commencé woon na wax de. non Sidibé Sidibé. waaw mais doo ko bàyyi mu wax tamit. non Sidibé Sidibé cuuraay yóbbu na sa xel mi. Sidibé Sidibé kër gi non fi mu ne nii kay Sidibé dégg man may waxte rek Sidibé moo gën a wóor quoi Non, c'est pas possible. Eh si, c'est possible. c'est que dama seetlu xale jigéen ñi temps yi pilule yi pilule amatul ci pharmacie yi quoi. <laughs> Il faut demander quoi, j'ai un ami pharmacien. oui je pour demander Aziz. kan moo may Yoro la. Yoro la Aziz. c'est Aziz pharmacien waaw man laa Abdou Aziz. eh Aziz waaw nu mu demee ça eh, Yoro sama copain. nu mu demee. ça va ça va Aziz. ça mhm. good morning good morning. waaye good morning. ah yee yee kon maa ngi direct ah. oui. <laughs> yaa ngi direct mais Ziz. waaw Ziz dama lay laaj ci quoi man dama dégg ñu ne bon les pilules amatul si euh, pharmacie pilules yi pour les. Euh, planification léegi nag man je sais pas qu'est-ce qui s'est passé noonu. ah pilules yi. waaw. waaw dañ ni dafa jeex léegi ci pharmacie yi man. demee nag mais xam nga xale yu jigéen yi non ñoo koy jënd nag. <coughs> ah bon parce euh, que bu ñu indee pilule yi nii ah. bu ñu indee pilule yi du taxaw de. Ah bokk na ci li ñuy njëkk a jeexal hmm? si toutefois que arrivage bi yegg si rek après am na si ñenn sax dañu fay bàyyi seen numéro ah pour que bu arrivage bi yegg si rek ñu woo leen c'est dommage ça ah, c'est dommage non c'est les jeunes filles xale yi nga xam ne amuñu jëkkër ah bon ñoo koy jënd ah ñoo koy jënd c'est dommage kan comme kan kan comme euh, kan kan quoi ñoo ñoo koy jënd ah <laughs> eh, non Tu es dangereux, quoi. Tu es dangereux, tu es dangereux. Non, mais hey, eh, c'est bien, hein, c'est bien. Eh, yow tu vois que moo gën. non mais xale jigéen ñi nag ñoo koy jënd ah les seize entre seize vingt cinq ans. Hmm. c'est dommage ça. C'est dommage. Merci Aziz. Merci la fin du monde. Merci. La fin du monde. fait mais si c'est la fin du monde. non wax na dëgg parce que entre seize ak euh, ak vingt cinq ans. mais les pilules c'est pour les femmes mariées. pour soreen njur gi. Mhm. yow juraguloo ngay soreen njur gi qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'est ce qui s'est passé laaj leen ko. non non non c'est ça le problème ñenn ñoo fi nekk ñu amagul jëkkër. aram bul du mooyu non yow bokkuloo ci xam naa doo ko def c'est ça tam bon du ko def bon le reste c'est les femmes mariées c'est resté, c'est les femmes mariées. Mhm. Bon. C'est sensible quoi, c'est sensible le six. C'est un peu sensible moo tax am na looy wax rek. nit ñi day yaakaar da ko seetlu quoi. su <laughs> fekkee seetlu woo kenn da wax rek yàlla mais il faut dire ah, arrêter ça c'est pas bon c'est la fin du monde wax dëgg yàlla si les pellules yéen xale yu jigéen yi ndaw yi ñooy nekk di utiliser les pellules. Mm. donc xale góor yi il faut fuir ah les les oh, les jeunes hommes il faut fuir léegi c'est le renversé vous de les femme vous de les intérêts de fuir. Hmm. waxuma leen nag ngeen mel ni comme mbii chaque jour nga fanaan rabee da ngay am jabar da ngay situant les femmes. Tu, tu, tu, dans six trois ans quatre ans de mariage sa femme commencé dafa bàyyi ngay wàcc ci lal. na nga pare ci Saalum good morning. waaw relation de morale laa nekk. c'est-à-dire nga nekk peintre. waaw léeg-léeg nga nekk dentiste. waaw léeg nga bëgg a nekk gynécologue. waaw loolu mënul nekk. tout terrain. yow léeg-léeg nga nekk peinture rek ab ngay jàpp di monte nii yow xam nga taxawuma fii. kii kan moo fi taxaw fii kër. lii di moom nga soloon démb merci beaucoup ah yow tamit <laughs> tout de suite on va voir euh, l'autre rubrique chante-moi ta chanson oh maniko oh mani tey ma boole la si ay tey ma boole maniko oh, oh ay tey ma boole xale mën ngeen waay oh maniko oh, tey ma boole la ak sa ma waa Sénégal maa ngi boole ñëpp ak seen yaay ci lu baax nañu def lu nice moo yor neexu leenam bal yoroo dafa tombeek Ari eh. nee na dafa tombeek nee yoo Baba Ari ko yor. merci beaucoup ngeen ciy xam dara suba suba ngeen ciy xam dara ñun ñoo ko yor. Mm-hmm. yéen a ko yor. waaw ah. yéen a ma yëngal. Mm. yéen a ma safal. Mm. yow yaa ko safal. Mm. ñun ñoo ko yor.